mbokki jërë ngeen jëfati ci ànd beeg jàmm ji info saa su ne bisimila ñu jukkil leen ci li fi jotorot cay xibaar te gën a fës ci ayuba si ñu nekk dañu koy doore rek coowal El Hadji Ndiaye ak Youssouma Jigéen Ndour mu di 2STV ak télévision Futur Média ginnaaw nag ba El Hadji Ndiaye nemmeekoo ba xam ne rek waa télévision Futur Média dañuy sàcc rek seen signal niki 2018 ba jon yàlla tey rek El njaay nag nee na moom loolee du ko bàyyi benn yoon ba tax na nag bi moo di signal bi nga xamante ni dañ ko doon sàcc ci ñoom ñu ne euh, loolee nag tax na sax nag waa 2STV doon am problème mu euh, signal ci seen euh, télé boobu moom nag nee na yàgg naa topp nag waa television Futurs Médias ci ni ndax nag dañuy am ay jafe-jafe animateur animatrice ak ay programme yoo xamante ni foofee ca 2 doon daw mujj ñu bu ko foofee ca TFM moom nag El Hadj nag mu jàpp ni rek waa TFM dañ ko daal di gët rek suñu déggee nag fi muy waxee rek nee nag waa 2S waa TFM dañoo jàppee rek 2S ab wujju rek te ñu seeni wujj ndax moom nag ma ngay xamle ne nag sax nag loolu nga xamante ni moom moo di kooku di Youssouma Jigéen Ndour yàgg na koo jàppale rek ci ndorteel waaye jamono jii dafa mel ay wujje lañ rek moom nag mu ne nag bi yoon nag du ko bàyyi benn yoon daf koy topp rek ba fa mbaxane doone benn bu laajee daal ñu daal di koy def bu laajee amande ñu daal di koy def ba tey ñu daal di wëyal li nga xam ne moom moo di waxtaan wi rek daal di dem nag fële ca TV daal di fay fekk nak oustaz Makhtar Sarr ak kaddu ya mu xëy yëkkati rek ginnaaw nag bi nga xam ne Wally Seck def na ab vidéo doon xam ne rek lépp képp koo xamante ni rek waxati nga borom ñaari tur daal di ci tuddu tëram daf lay daal di porter plainte moom oustaz Makhtar Sarr xëy na niki alxamis bi daal di jot nag li nga xamante ni moom moo di plainte moom nag nee na plainte boobu yàgg na koo dégg rek waaye alxamis bi la daal di jot moom nag nee na plainte ba ñu ngi ci bindu turam ak ki nga xam ne moom moo di Jupiter militaire ak waa groupe Excaf bi yëpp moom nag euh, nee na anam yi nga xamante ni lañ ko porté plainte moom du ca leen ndax rek euh, dafay daal di euh, waar askan wi ci wàllub ñaawteef waaye tamit di ñaax askan wi ngir ñu mën a bañ a bàyyi seen xel wala ñu ëytu rek li nga xam ne moom moo di borom ñaari tur ndax moom nee na Wally Ballago Seck dafay promouvoir borom ñaari tur te moom loolee du ko seetaan ci réew bu Sénégal ndax li ni mel day delloo réew ginnaaw moom nag nee na tiitu ci benn yoon ci boobule plainte mbégteeg bànneex la ci àndal ndax rek euh, moom ci li ñu ko euh, plainte rek moom moo di euh, defaraat réewu Sénégal moom nag ma ngay xamle ni nag plainte boobu wéetu ca benn yoon ndax rek waa ànd sàmm jikko yi ñu ngi ci ginnaawam bi ba tey rek ñu daal di koy jeexale ak mbir mu doywaar boo xam ne ma nga xewee fële ca Kër Massar bile information nag ñu ngi ko jëlee ci libération yéenekaay ab waay ju ñuy woowee Ibrahima Touré moom moo fa tëddee ab ndaw bu ay atam toll ci fukki moom nag ñu ne ci anam anam mu ko tëddee yàgg na koo tëddee yàgg na kaa def li ni mel waaye boobu la ngone moom xam nga rek boobu la ngone euh, mënul woon wax rek loolu nga xamante ni moom lay dund ci noonee nag ñu ne euh, kaka bett bokk na ci ki nga xam ne moom moo di euh, belle sœuram mbokki jërë ngeen jëf li moo nekkoon xibaar bu tàbbi woon ci ñun te ñu doon lañ ko jottali sant ngërëm ñeen leen sant ngërëm ñeen sama cadre Cheikh Omar Dramé rendez-vous très bientôt ci beneen xibaar bu ñu leen di jottali jërë ngeen jëf